Fofou la ñu amal ci Alger forum des pays exportateurs de gaz muy rew yi nga xam ci walu gaz ràññee nañ leen ci ñukoy koy Sénégal nak xam ngeen légui da ci bokku mu di membre observateur wax ci nak joxé xalaatam nak nonu njiitu rew mi nak mi dalalon ko foofu ci forum bobu mu wax taxawaayu Sénégal ci walu gaz bi lan len ci jublu non ci def bobu ak légui lan lañu fas def loolu yépp ci ay explication yo xamné njiitu réew yi dégg nañ ko ba loolu moo waral ñu def euh, Sénégal léegi mu bokk ca kuréel googu di membre observateur foofu ca Alger ñu fekki suñuy ndaw Mamadou Belem ak Seydina Omar muy gulet Sénégal ñëw teewe ci forum bu am solo bi boole réew yi nga xam ni ñoom ñooy exporté maanaam jaay gaz njiitu réew mi ñëw teew teewal Sénégal waaye tamit jëmmal bokk suñu réew ci kuréel bu mag googule teeru bi ko président Algérie Abdelmajid Tebboune teeru di wane ni am na jéegu bu mag bu suñu réew def ngir rek bokk ci li nga xam ni moom mooy kuréel gu am solo gile muy nag pàcc bu njëkk li ci des mooy ñu gën a mën a teew ci wàllu kuréel googule statut observateur nag mooy li nga xam ni rek moom mooy tax Sénégal teew ngir rek jàngat waaye tamit

ndax méngoo na ak li réew yi di doxal ci seen wàll mu yokk ci ni tamit am na benn stratégie boo xamante ni teg nañ ko ngir rek gaz bi ñu liggéey ko waaye tamit jëfandikoo ko ni mu waree askan wi yépp bokk ko ndax loolu moo nekk ci constitution bu Sénégal am na yeneen kuréel njiitu réew mi fàttali na ko muy lépp lu ñuy jàngale ci wàllu gaz wala pétrole ak bokku Sénégal ci kuréel gi di ITIE lépp rek di wane ni yorin wi yorin wu baax la te moom ci loolu la liggéey ba jamono jile jiitu réew bi nag yokk ci ne teewaayu Sénégal ci kuréel gi dina tax rek mu jàng ci réew yooyu waaye tamit mu leen di ñaax rek ñu gën a bàyyi xel lii di koppar yi ñu war a def ci projet jëm ci wàllu gaz njiitu réew bu Algérie nag nga xam ni moo jiite woon ndaje bi gërëm na lool sant président Macky Sall ci teewaayam di félicité Sénégal ci bokk bi mu bokk ci kuréel gi njiitu réew mi moom it gërëm ko sant ko ci turu Sénégal di wax mbegte bi mu am teewe ndaje bu am solo bile. kii solo foofu ca Alger ñu japp rek ni léegi Sénégal membre observateur la ci pays wala bok forum des pays exportateurs de gaz manam réew yi nga xamné dañuy jaay euh, gaz fatali ni premier ministre don dajé ak euh, ñi di nappkat yi ci Yoff ñoom acteur yi moom Amadou Ba premier ministre gouvernement bu Sénégal waxtaan na ak ñoom ci lépp loo xam ne jàpp na jëm ci wàllu napp gi ci liñ ci jot def ak lañ ci waaj a def lu ñu bëgg ñu def ko ci loolee lépp daan ci dellu si ak Aram Ndaw balay boobu ñu dem ca Kaolack Kaolack chambre de commerce d'industrie d'agriculture ba dajale moom it partenaire am yi nga xam ne ay professionnels lañu ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu lu ñuy wax secteur agroalimentaire wàllu bay dunde gi foofu lu ñu bëgg rek mooy fexe gën ko suqali ba nit ñi gën koo mën a jëfandikoo foofu ca diggante siin ak Saloum Kaolack Karax Diop coordonatrice nationale bu Promoville ñëw ànd ak ay service technique am waaye itam autorité administrative locale yi nekk file ci Kaffrine ngir rek saytu liggéey bi nga xamante ni ñu ngi ko fiy amal ñu fas yéene fee defar lu ëpp juróom benn kilomètre euh, si tali li ne mal nag ñu tas ko ci juróom-ñeenti pàcc travaux yooyu Promovilles di réaliser ci biir Kaffrine di ñëw di compléter ay travaux une ñu fi démarré woon déjà dans le cadre du programme xëyu ndaw ñi euh, muy ay pavage yoo xam ne déjà def nañ ko fi euh, ñu war fi intervenir également euh, à environ hauteur de 6,7 kilomètres ay tali yoo xam ne ñu ngi ko war a def yenn yi nekk en enrobé mooy tali yi goudron la yenn yi war a nekk aussi du pavage ñu démarré ko sur financement de la banque arabe euh, pour le développement économique en Afrique. Nous sommes partenaires au Sénégal. Nous avons 9 tronçons qui été intervenir. Nous impacté 12 quartiers de euh, Bir Birkafrin. Donc, si vous regardez, quand visite, 9 tronçons ont démarré. Nous avons fait que avec le rythme de l'entreprise et l'engagement, nous allons finaliser la délai de septembre 2024 mu melni ni liggéey bi dina yemb ci bu gaaw gaaw lile nak dina am njeexital ci lu toll ci fukk ak ñaari quartier fili ci commune bu kafrine li ni mel nekk lu am solo. gis nañ nit bi ñu commencé yàggut te ñu ngi ci 30 pour cent te ñu jàpp ni délai bi ñu wax mooy en 30 septembre ñu mën a pare yaakaar nañ boobu dana dana mën a yemb en tout cas liggéey bi ñu gis nii ci 9 tronçons ñu ubbi yëpp ci biir commune bi te quartier yëpp ñu laal leen ah, gis nañ liggéey bu rafet gis nañ ay services yu engagé. wax nañu itam population yi ñu leen jàppale euh, commune bi ni mu leen jàppale service yu nga xam ne administration te gouverneur jiite la ñu leen jàppale may gën a ñaanaat rek euh, askan bi population yi ñu gën leen jàppale ci liggéey bi fii euh, service municipaux yi nga xam ne si sama sama kilifteef la ñu nekk ñu gën cee jàpp gën leen bàyyi xel waaye wóor na ma ni gouverneur ak préfet ñoom tamit danañ veiller pour que service déconcentré yu nekk ci administration bi gën leen jàppale en tout cas ma ci li ma doon gërëm tous les jours président la république ndaxte lii bu fi amee président de la république ñëpp xam nañu budget wu Kaffrine un milliard la ci benn at président la République jox ñu cinq milliards et quelques euh, pour que ñu mën a defar lii euh, ñu félicité wax encore une fois président la République projet bi nag kii di banque arabe pour le développement économique en Afrique moo si dugal ay koppar dinañ fi tabax itam yeneen i bànqaas ngir askan bi mu bokk si ñetti infrastructure communautaire waaye itam lu ñu duppee appui institutionnel ñu rek soñu bu baax service municipaux yi waaye itam askanu Kaffrine ngir rek ñu gën a mën a jàpp si liggéey bi bu baax a baax bu ko defee mu mën a gaaw pare. ngok ni Kaolack ni Kaffrine loolu mi ngi xewee ca Kaffrine jamono yi lu toll ci juróomi milliards ak lu topp moo la fa nguur gi dugal. li ñuy def nag moo di fexe liggéeyaat dëkk ba jàppale leen ci wàllu télé bi nit ñi mën a dem mën a dikk gën a yombal lépp loo xam ne daal taxawaayu nit ñi la foofu ci wàllu làmp yeeg lépp ba Kaffrine ne boy lool nag moom ngeen gis noonu ci reportage bu Claire Diop du ñàkk ci kanam daañu dellu si foofu ca Kaolack balay boobu wax naa leen ko sànq premier ministre mi ngi doon daje ak acteurs yi yëngu ci wàllu ko napp gi axam ndaw. Yoff xumboon lool. fu ne nappkat joge fa daal di ñëw teewee ndaje bu mag bi ñuy woowee grand panel di jotaay boo xam ne ñu ngi fiy waxtaanee mën a jëmale napp gi kanam ku ci nekk nag sànni ci sa kàddu. ñuy ñaan nag dañoo bëgg nga nationalité bi cër bi nga xamante moom la Sénégal yi dese muy jobay ngay bi yaboy bi óomo bi. ak yeneen ak yeneen yu seesewaat yooyu ndax dafa nekk amatuñu xaalis bi ñu jëndee coow amatuñu ñu jëndee jare te jën woowu bu ñu ko fa bàyyee coow jëlu si jare jëlu si coow jëlu si leneen jëlu si leneen jëlu si. accord bi ñu def tamit ci ton yi accord bi ñu def ci ton yi yoo fa ñu nii ñëpp ton la ñuy napp waxandoo mën nañ. kon nañ ñu dimbali si ressource bi ba ñu mën see jot ba di ko liggéeyam boo demee tey site boo dem. formatrice jën bu ñu formé amatu fa da toog di xaar client mu ñëw indi la say jën nga liggéeyal ko mu fay la demu yoon te bu ñu sañoon kat ñooy jënd jën bi liggéeyal sunu bopp. ndaje mu yaatu mi ministre Abdoulaye juuf saar woote ràññee nañ ci nag ay nappkat yu baree bari waaye ñi nga xam ne seen xam-xam da cee màcc rawatina nag jëwriñ yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ministre de la peche ñoom it ñu waxtaan nu mu gën a yaatoo ci li nga xam ne nappkat am nañ ko ba noppi muy nappkat yi waaye it yëngu yëpp ci wàllu napp gi. boo jëndee moteur bi jox la un million wax leen ma ban réew la am amul fenn ni en Afrique ni dans le monde lu ëpp juróomi junni moteur joxe nañ ko may jógee ci ministère muy cinq milliards de beneen bi mooy bi ñuy lakk at mu jot huit milliards lañ ciy def. xool leen 2012 ba léegi ñaata la 96 milliards de subvention bu ñu jox nappkat yi la pêche pour que ñu mën a dem wuti jël. wax naa leen ci camion frigorifique bi mu am solo man bi may génn ministère ba rek maa fa bàyyi 55 camions yu bees yu ñu waroon séddale te avant loolu bu ma juumul temps wu Oumar Gueye plus de 115 camions joxe woon nañ ko et cetera et cetera. jàpp nañ ni loolu ku ci ngoy yokk ba pare xool yeneen jafe-jafe yi indi ci saafara ah secteur bi incha allah dana jàmm. Le secteur bi bu amee jam monsieur le premier ministre dañ naan ce secteur c'est six cent acteurs ça ça date de plus de vingt ans ce secteur c'est au moins un million cinq cent âmes qui en vivent donc c'est un secteur majeur de ce pays ñoom ñëpp nag d'accord ne ay jéego yu bari def nañ ko ci wàllu napp gi waaye ba tey ñi ngi xaar ñu gën a dëgëral bi premier ministre nag moom it indi ci xalaatam la nga xam ni bëgg nañ ko def ginnaaw président Macky Sall on va mettre l'accent sur les ressources humaines mais infrastructure yi dañ koy yokk ba comme li jëm ci ay quai de pêche comme bi am Soumbédioune wala jëm ci ay port wala organiser secteur bi ba gaal ñu immatriculer mën leen a xam jumtukaay yi mu war a àndal moo xam gilet la moo xam GPS lépp loo xam ni day jox sécurité ñi nga xam ni dañ ciy liggéey loolu lu am solo la ciy nekk. li nga xam ne jëm na ci accord de pêche yi ñu waxtaanee ko fi tamit nu mu gën a yaatoo premier ministre ne nguur geeg acteur yi bokk nañ ci xalaat. accord de pêche bi ngeen wax ak union européenne danañ ko rediscuter.

mu yokk seen koom-koom ngeen koy jaay suñuy industriel parce que aussi on a des sociétés yu nekk ci biir Sénégal yoo xamante ni am nañu ay jumtukaay yu leen mën a may koom boobu. ay waxtu grand panel bi jël na ko di waxtaanee rek wàllu napp gi fii ci yoof nga xam ne daa bëri nappkat ñu am yaakaar ne napp gi dina gën a jëm kanam su ko defee ku ne mën cee gën a gis sa bopp. ñu dem ba Kaolack ak chambre de commerce d'industrie et d'agriculture bu Kaolack doon waxtaan ak euh, acteurs yi ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu dund gi ak mbay mi foofu ca Kaolack ngir gën ko suqali Kaolack Claire Diop daje bile nekk am euh, solo ñu waxtaane fii lépp luy alimentaire mu bokk si nag ñi nga xamante ni dañuy yëngatu ci wàllu wi expert ci wàllum normalisation waaye itam partenaire technique et financier file euh, tax euh, ñu waxtaan ba xàll yoon ngir rek li ñu duppee lii di normalisation waaye itam gën a suqaliwaat stratégie commerciale yi bu ko defee ñu mën a méngoog jamono li lay di tax ñu mën a jaay si marché yi yëpp normalisation moo nekk caabi bi nga xam ne mooy ubbi marché yooyu noonu ma ne waa dëgg la normalisation mooy caabi bi ndax ma normalisa boo normaliser ci la say partenaire di la say partie prenante di la di la wolu am confiance ci produit yi leen di jox am nga xam ne yow foog da nga obligé nga respecter ay qualité di nga xam ne di Euh, respecter les réglementations. réglementation donc donc journée marketing agroalimentaire thème bi normalisation clé essentielle d'accès au marché Manam li di normalisation nous tax ñu secteur privé régional parce que nous, ne un entreprise agroalimentaire yu nekk lu ñu produit yëpp di ko transformé ñu mën a accéder au marché boo mënta accéder au marché doo am richesse te boo amul richesse doo mën a développé wu. donc lii ñu def lu am solo la te ñu ngi xalaat ne atelier bi bu buñ ko paree chambre de commerce ak ARD bi ak euh, ENABEL dinañ def benn task force pour avoir benn coaching individuel ak groupé des agro de Kaolack pour que ñu mën a di jaay. Euh, mise en relation bi nag ENABEL loolu lañ ko xalaatee en relation xool commande en matière de produits sénégalais Brésil États-Unis ñu commencé jël suñu agroalimentaire agroalimentaires. defar leen ba des a jaay ay tonnes tonnes ci biti di am xaalis yu bëri bëri tout le monde développement il faut richesse am richesse mooy jaay bi boo jaayul da ngay initiative BINIMEL, chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Kaolack Moko amal

liggéey na nag lu bëri ak béykat yi euh, daanaka mu leen ni ay lu mel ni ay GIE yi nga xam ne nag jigéen ñi ñoo ci yëngu ak ndaw ñi

waaye itam xam fu ñuy jaar ba lii nga xamante ni dañ si yëngatu ñu mën ko jaay seen produit itam mën a nekk ay produits de qualité ñu dugg nag ci li ñuy wax euh, weer bi ñu jagleel euh, soxna yi xam ngeen ñu ngi wutali 8 mars mu di juróom ñetti fan ci weeru mars muy journée bi ñu jagleel ci àddina bi yëpp njiit yi soxna yi fii nag ci RTS ñu leen di gunge ci weer woowu tey ñu taamu wana leen ak Fanta Camara soxna soo xam ne moom Fanta kamara nañ ko ràññee ci wàllu liggéey bi muy liggéey ci wàllu environnement bi lu mel ni gàncax gi di ci taxaw saa su nekk ci réew mi activité bi réew ñëpp ràññee ko ci nataalam ak Moussa tey ci suba Fanta Camara ak xaritom bi nag dañoo ñëwoon fii ci périmètre bi ngir ñu mën a xool nan ñuy lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñooy jëmbat garab yi fii mu mel ni nag ñoom si seen i liggéey nag dafa am ay activités yu am solo yoo xamante ne dañ koy def ci wàllu reboisement waaye tamit dañuy maye ay garab ci yenn écoles yi wala ci yenn bërëb yi. honneur de pour ñun ñu ñëw liggéey ak ñoom. pour tey bu ñu bënee soxla ay plante ñu ñëw woo leen ñu jox ñu plante ñu soxla pour gën a mën a promouvoir seen liggéey mais aussi jàppale leen si li ñuy def parce que bëriwul ñu koy def jigéen yu yu gëm seen bopp yu ñëw toog si champs yi. nañ ko affaire yi nan lay démarrer pot yi ñu koy gérer ak ñu koy jaayee nuñ koy rempoter nuñ koy def ni ñuy defaree mélage suuf bi ba mën a am qualité garab bi normal. tey su amee reboisement yooyu noonu mën na ñëw fii gaa yi jàppale ko ñu euh, garab. ak nombre effectif ba xamante moom lay soxla pour dem def rebasement boobu noonu. bu ñu xoolee tey euh, coono jafe-jafe yi am alam bi am ñun ñëpp ñuy nekk nit wala mu nekk mala ñoo ngi koy yëg donc Fanta bu engagé comme yeneen jeunes yi ñun ñëpp ñu engagé wu pour l'environnement day nekk loo xamante ne pour njëriñu askan bi la. taxawaay bu mu am ci wàllu alam bi nekk na lenn loo xamante ne daf ko teel a yéeg bi muy ndaw. moom jotoon na dugg ci ay kuréel yoo xamante ne foofu sax dañ koy ne mu daal di def lépp loo xamante ne lu jëm ci wàllu alam bi mu nekk ay liggéey yoo xamante ne ñu bëri dañ koy tuutil waaye moom gis na ni ay liggéey yoo xamante ne dañ koy may xam-xam. depuis euh, ba ñuy am fukki at ak juróom juróom ñaar juróom ñett yooyu dañ commencé nekk si ay association jeunes donc euh, et souvent voilà li nekk si terrain bi di organiser ay nettoyage di organiser ay reboisement après dañ commencé développer mbëggeel bu ñu am ci affaire alam amour envers l'environnement. ci lolu nak la dadi di ben entreprise de communication dadi taxawal ben magazine bu tudd Simag magazine bobu nak day ñew informer waye tamit sensibiliser askan wi ci lepp lo xamantene dafa jëm ci walu alam bi ñu tuddé ko nak ay walu changement climatique wala développement durable. tey ba démé ma xol ñima xam ñima ma xarit may àndal voilà ñu connaissance ma am yépp bu leen laajee si yan domaine développement durable ñu am ay notion yu ñu lay wax su lañ créé benn journal boo xamante ni voilà chaque mois day génn pour mën a wax si benn sujet si environnement te journal boobu tey objectif bi mooy mën a xamal nit yi lu ñu xamul woon si environnement mën leen jàppale ñu mën a gën a gën a gëstu si domaine bi. magazine bi nga xamante ne mooy si mag nekk na lenn loo xamante ne dimbali na ko bu baax a baax ndax bëri na ay contacts yoo xamante ne am na ko xale bu jigéen bi nag mu daal di commencé am tour nag ci wàllu. changement climatique fii ci Sénégal rawatina ci àdduna bi ba tax na nag gis nañu ni bëri na ay rencontre yoo xamante ne ci biir àdduna bi da koy participer rawatina ay COP yi nga xamante ne jot na fa dem lu mel ni COP bi ñu amaloon daaw fële ca Dubaay. bu ñu demee foofu noonu tey gis nañu moroomu ndaw yu nekk si yeneen pays dañuy booloo pour mën a ñëw xool na la ñuy gën a euh, yëgale suñu voix ba ñëpp dégg ñu xam ne ko ñun aussi ay ndaw nañ waaye ñun ñooy waa ñun avenir bi pour ñun la quoi dëkk bi fee tey Sénégal changement climatique bi ñu ko xeexul tey fii ak yi di ñëw ñu ñoo koy gën a sentir. xibaar yi nga xamante ne da koy def ci magasin bu di si mag nag moom day liggéey ak ay ONG fii ci Sénégal rawatina ci àdduna bi mu mel ni nag day indi xalaatam waaye tamit xam-xamam lépp lu jëm ci wàllu alam bi ak ban taxawaay la askan wi war ci taxaw day xool nan lay liggéey ak xale ngir mu mën leen sensibiliser. ci le changement climatique. donc ñun li comme child affaire euh, euh, donc ñun bëgg yi ans 25 ans def ba sentir ni que ci environnement bi aussi am comportement yu si envers environnement bi ak aussi danañ mën a nekk ay acteurs de changement ñu mën a tey inspiré yeneen ndaw ñi seen waa kër yi ñu demee seen kër di ko wax sax seen seen yi. ay jafe-jafe Fanta Camara amoon na ko du muy door ci liggéey bi ndax xale bu ndaw la woon du mu duggee ci li nga xamante ne mooy taxaw ngir xeex pour alam bu rafet mu mel nii nag bëri na tey ay jafe-jafe yoo xamante ne wàññeeku nañu bu baax a baax. ndax xale bi léegi dem na ba màgg daal di am tamit tour fii ci Sénégal rawatina ci àdduna bi mbébétam nag mooy fexe ba fépp foo xamante ne Sénégal mu nga fa mu daal di fay taxaw ngir défendre intérêt Sénégal rawatina lu jëm ci wàllu alam bi. ci loolu nag moom lu mu gën a bëgg jamono ji mooy fexe ba egg fale ci siège des Nations Unies ngir jébal fa kàdduwam pour àdduna bi yépp ci loolu la ñuy des ba léegi beneen soxna mi ngi nii mi ngi wuyoo yaa xam caam kooku moom. xam ngeen ko ci diggante RTS 1 RTS 2 ak rajo Sénégal moom it euh, di boroomi kër waaye teewul di def liggéeyam ci ni nga xamee ni loolu ñu ko bëggee ñu koy wax professionnellement moom it yaa xam caam am jaar-jaar boo xam ne royukaay la ci biir euh, monde des ak ci réew mi ci biir soxna yi nataalam ak euh, Ndeye Kumba Ndiaye kanamam ràññee nañ ko lool xarañceem tax na ba yaa caam daal di doon ku ñu ràññee ci RTS ba mu tàmbalee nag ba jamono ji def na fanweeri at xale bu jigéen ba woon màgg na waaye nag taxul mu fàtte jaar-jaaram maa ngi dugg nag euh, ci euh, média bu mag bile euh, di RTS le 1er novembre 1994 lu yàlla tudd parce que bokkul woon ci sama ay plan moo di dama nekkoon anim hôtesse d'accueil ci convergence culturelle bu Kaolack Euh, boobu Koura Thiam euh, moom moo fa nekkoon ministre et ma daje nag ak journaliste bu ñuy wax Abou Alassane Niang Abou Alassane Niang nag vraiment nekk mag nekk xarit bon on euh, a lié d'amitié et benn jour ma doon dem Gibraltar ma ne xaaral ma xool ndax abu mi ngi fi dugg si mu ne ma ah man sax dama la naroon woo parce que dama la soxlo ma ne ko ah bon lu xew mu ne ma dama bëggoon nga bokk ci jigéen ñi nga xam ne dañuy nekk Dakar FM première bonne FM du Sénégal ma ne ko ah bon mun ma ma ne ko non man xaw ma sax nu ñuy waxee mu ne ma si si si si euh, waxtaan naa ak yow xam naa je je sais ma ne ko ah oui mu ne ma bon xaaral ma woo Pedre donc c' est là feu Pedre Ndiaye la ñu ma boole ak Pedre ñu waxtaan euh, boobu nag la Pedre moom itamit euh, boole ma ak Michael Souma donc ma démarré à la rajo. jugee rajo dem télé ndam rek la ci jëlee xarañceem tax na ñëpp xamoon ne noonu lay demee mu doon koo xam ne liggéeykat la loola nag daal di koy amal njariñ chef de département qui na ci ñi nga xam ñoo sos RTS 2. RTS 2 bu ñu koy démarrer euh, dama koy wax dama koy faral di wax euh, def ci média euh, ça arrive souvent mais démarrer une chaîne de télévision quand même ça n'arrive pas souvent alors RTS 2 bu ñu koy démarrer maa ngi fàttaliku ndeysaan lu metti parce que maa ngi war démarrer la chaîne non seulement il y avait presque beaucoup de gens qui étaient du côté de la régie Mais nag ci biir studio le directeur RTS yëpp taxaw waaye nak Racine Talla moom est yegg si ci biir ñu jox ma décompte 5 4 3 2 1 c'est parti RTS de Ibina, j'étais à l'antenne et il y nak amoon na tuuti stress mais il paraît que ça s'est bien passé parce que dama def sama premier speech rek euh, monsieur Racine Talla ne bon début. yaa xam jaajëfal na RTS ngir confiance bi nga xam y am nañ ko ci moom. ak ci bépp jigéen buy liggéey ci RTS. man RTS moo ma fabriqué de toutes pièces RTS moom ma formé euh, du début à la fin lépp lu ma xam lépp lu ma mel RTS la parce que bi ma fi dugg nekkoon naa xale sama waajur yi génn àddina vraiment ñu ñu téye ma encadré ma nag. Euh, feu Djibril Wade euh, keneen ki nu mu tudd waaye réalisateur bi ba Badara Ndiir ak ñeneen Cheikh bu gay ak Babacar Sayer Diagne enfin. il y en avait beaucoup et dañu taxawoon non seulement taxawu waajur mais dañu taxaw sur le plan professionnel won exactement yoon bi nga xam ne dañuy foofu la ñu war a jaar donc euh, mu nekk vraiment euh, boîte bu nga xamante bi je dois tout à la RTS la RTS m'a tout donné. yàlla may na ko ñetti bant moom nag fexe na ba mën a boole lii di liggéeyam ak dundam bu ñibbee këram tukki nak bokku na ci liko gëna neex jamono ji sax umra la jóge fee ca màkka yaa xam caam nak yamul ci loolu rek doon na présidente ab association bu mu tuddee yaay dafa ñàkk ay waajuram tax na mu gën a jàpp ñi nga xam ne ay baayu lañu ak xale yi nekk ci ay jafe-jafe ñi muy liggéeyee ndool ñi ngi def témoignage ci moom nit ku baax nit ku neexal liggéeyal depuis sept ans ñu ngi nekk ensemble fii RTS 2 mais net koo xamante bi vraiment ku ouverte am ouverture d'esprit mun a une équipe vraiment yaa xam équipe bi mu nekk ak moom vraiment ku ci nekk dalay intégré si équipe bi. weeru koor nag li ci des bariwul. émission bi di tàndarma nga xam ne ci ñi koy animé ci la bokk. doon na émission bi ko dàqal ci carrière am yépp buñ ca yeggee dana wanewaat xam-xamam ak mën-mënam ni ko faral di defee loolu nag téléspectateurs yi sopp nañ ko ci lool.

lépp loo xam ne ay ngëneen la reportage. ab longo ab reetaan ak itamit yéeneen te jàmm loolu bokk na ci li nga xamante ne bëgg nañu ko mbébét ko ci ndaje yi nga xamante ne moom lañuy amal ci jamonoy carême jullitu kercen yi di ko amal ngir rekk gën a sukkandiku ci yàlla gën jàngat li nga xamante ne Modi di seen diine ñu koy def ak xol bu karam nga xam ni catholique dañuy ci moment bi di tàcce di waxtaan lu jëm ci ci kàddu yàlla lu jëm ci ay itam yoo xam ni c'est assez spécifique comme bi ba su Pape Jean dundam la def ci ñun mu di ko jox euh, église catholique bind ya mu doon bind di ko jébal mu ñuy gën a ci sunu ngëm Uh, dëgg-dëgg tay daje bi daje bu am solo la te ñu ngi ciy gërëm yàlla bu baax. suñu dafa di jamono boo xamante dañuy dellu si waat si yàlla donc lii dina tax ba ndaw ñu gën a seetaat biir église tamit si seen biir communauté maanaam si seen biir réew. boo gisee li ni mel nag dañu gën a bëgg rek dund seen diine bu baax a baax bëgg tamit seetal seen xol ci jamono yi nga xamante ne rek day fàttali Yeesu Krista ca ba mu demee ci désert ba ngir amal wooram waa amical RTS nag daal di tànn rekk ab thématique bu nga xamante ne da leen di sonju ngir ñu seetal seen xol beneen beneeni kuréel taxawal ab conférence ngir rekk jàngat li nga xamantene mo nekkoon liggéeyu Pape Jean Paul II. dañuy ñaax fidèle laïque yi pour ñu gën a jël seen wàll ci jàngu bi gën a jël seen wàll ci àdduna bi naka lay doxee ah te loolu dafa méngoog message bu nga xam ne Jean Paul II moom la fi bàyyiloon bi mu ñu ganee see 92. waaw kon boo dafa mel comme si li ñëpp nag a dund mooy engagement c'est-à-dire sóob seen loxo ci évangélisation. ñu proposé ñu thème ci setal suñu xol setal suñu xol ndax mun a dund suñu diiné mun a dund suñu diiné ci ngëm ci partage ak ci balé parce que xol bu setul balé donc euh, abbé Jean Roland Ndour mi jiite kàddu bi tay jangal nañu luñu mëna ñibé suñu kër yi ndax ñu mëna gëna dund suñu koor ci ngëm ci ñaan. ay jamono la yu nga xamante ni tamit dinañu soxla bu baax a baax taxawaayu waa jàngu ji maanaam làbbe yi ngir rekk ñu gën a jàngale lu jëm ci diini gi. dañuy gën a farlu ci karam bi rek dañuy gën a góorgóorlu ci karam bi mais bés bu nekk dafa war a nekk bés bés bésu tuub voilà ak leneen lu ni mel donc tey récollection la ñuy def récollection mooy euh, waxtu boo xamante ne dañu jëm ci benn bërëb. ngir gën a gëstu kàddu gi yàlla gi gën a waxtu lu jëm ci yàlla gën a euh, gëstu ci diine bi de façon général pour ñu gën a tuub gën a gën a góorgóorlu gën a setal suñuy xol. koor gi euh, ñëpp xam nañ ne ay waxtu yu yu yu la waxtu ngeneen parce yàlla bu Jésus Christ mooy maye 40 jours ñu daal defaraat toogaay yi defar xol yi defar gis-gis yi waaw pour gën jege yàlla.

bëri na activité yi nga xamante ne jullitu kerceen yi ñu ngi koy amal ci jamonoy koor gu sell gi ñu ngi koy faral nag di def ci week yi ngir rekk jullit kerceen yu bëri mën cee bokk ndaxte kat baax na lool ñu mun a bokk ñaan ak seeni ñooñ ñu ngi ñu dem ba Thiès journalistes yi nga xam ne ñu ngi bokk ci collectif euh, des journalistes économiques du Sénégal maanaam ñu gën a fés ci wàllu koom la ñuy yëngatu di ci bind ak di ciy wax ñu ngi doon tàggatu ci nag lañ doon tàggatu foofu Thiès ci ñaari fan yooyu le Fatimata Banel Ba. seetlu bi moo di dëkk bu nekk su bëggee koom moom dox ni mu waree faaw ñu jéem a xool naka la ñuy waxtaanee saa yu jafe-jafe amee loolu nag dina gën a ñoŋal lii nga xamante ni bii mooy climat des affaires bi ba investisseur yi mën a ñëw di investir ci réew mi. lu jëm si wàllu investissement li si ëpp solo mooy sécurité juridique li tubaab naan sécurité juridique leneen ni moom mooy célérité maanaam gaawaay bu yeexee mën na indi sooxe pour mu gaaw rek. yaakaar na ni li ñuy wax mode alternative de réglement des conflits mën naa tax mu gën a gaaw ndax loolu ñaari parti yi am contentieux ñoom ñoo ko séq ñoom ñooy waxtaan ba juboo mën na ut seen arbitre mën na ut ku leen concilier pour ñu mën a juboo si seen contentieux. mu mel ni kon li nga xamante ni bii mooy mode alternative de réglement des conflits économiques mu di ay pexe yoo xamante ni bii nguuru Sénégal teg na ko ngir gën a mën a ñoŋal koom-koom gi waaye itam gën a yombal juboo saa yu jafe amee am na solo ba tax na nag ñu indi fi journaliste yi nga xamante ni dañu xarañ si wàllu économie ngir gën a xamle leen ak li nga xamante ni bi ñoo di mécanisme yooyu ñuy woowee marque ñu jëw di andi seen xaalis di ko investir dañu bëgg ci wàllu réero bu amee parce que réero du si ñàkk parce que dañuy ñëw investir pour am rentabilité donc du ñàkk ñu am ay réero donc ñu mën ko régler nu mu gën a gaawee ñu mën ko régler ci nu mu gën a efficacité nu mu amee efficacité et puis aussi def ko ci euh, ci confidentialité ah ci confidentialité ñu def ko kenn du ko yëg. tey dañ xam ne aussi acteur euh, journaliste économique ay acteur lañ économique moo tax ñoom ñu jugé nécessaire impliqué leen ci projet bi fas yéene nag am ak ñoom partenariat donc ñun ñu ngi leen di ñaan aussi gannaaw atelier bi ñu am yeneen ndaje pour ñu gën a xam gën a maîtriser mon alternative yi tax aussi suñuy bind mu yombal ñu suñu liggéey. seetlu bi itam moo di Jafé jafe saa su amee ci diggante ñaari partenaires commerciaux ngir régler ko ci tribunal ba du yomb dina yàgg loolu waaye itam dina indi ay jafe-jafe ci seetlu rek ci ñaari at tribunal du commerce bu Dakar traité na lu toll ci onze mille cent soixante dossiers maanaam fukk ak benn junni ak téeméer ak juróom-ñaar fuk ak juróomi dossier yo xamantene buñ ko doon xayma ci xaalis tollu na ci ñaari téeméeri milliards yu tek juróom-benn fuk ak juróom ñent

ëpp na dossiers 11 000 dossiers ils mu traité ci ñaari at yu mu ko ñëk a créé mais aussi ci comme comme xaalis nekk da lo xam ni c'est 269 milliards. jamono yi nak ñi nga xamanteni bi ñoo ngànk wàllu bi ñom lu ñu bëgg rek moy gëna fëssal li nga xamanteni Bi moy mode de conciliation yoyu manam djubol yi mëna dox ci digënté ñaari partenaire ba tax na nak dinañ ko gëna tassaré ci Dakar waaye itam ci li Sénégal gi yépp ngir nit ñi gën ci bayyi xel ñu yegg si pàcc bu mujj bi jagleel ko rubrique santé xam ngeen ñi ngi ci weer bi ñu jagleel jigéen ñi moo tax ñu taamu ni leen nataalu ndey Aby Ndoye professeur la première femme agrégée ci wàllu chirurgie bi nga xam ne moom la ñu jagleel gone yi moom nag euh, gën na fees itam ci opération intervention chirurgicale bu mujj bi ñu fi gisoon ci diggante ay seex yu ñuy tuddee jumelle siamoise yàlla def ci jàmm ba mu am ci ndam moom ak équipe bi mu doon coordonné moo tax ñu jagleel ko bile natal ci jamono jamonoy euh, delloo njukkal soxna yi rubrique santé ak fantabati ci bloc opératoire bu service de chirurgie bu hôpitalu xalé yi di Albert Royer ca fan professeur Ndeye Aby Ndoye di amal opération bu bes xam-xamam match lool ci feebaru tout tank yi soxla opération day wane ne rek amna opération yu bari yo xam instant yi mën nañ ko def fii surtout dëkk yi mu wañi li ñuy wax immigration pour sur le plan médical Manam, du du main d'œuvre manqué parce que les village planétaire la technique bu bees bu xew en France ñun dañ ciy parce que dañuy participer ak ñoom ci ay congrès ay échanges. Kangam le ci pàcc bi muy chirurgie pédiatrique. xam nañ ni am na femme chirurgien pédiatre yu yu xarañ ñu nekk di def liggéey bu am solo si dëkk bi aussi nous suivre même voie au moins nous am suñu équipe équipe d'âme chirurgien pédiatre mm, agrégé également. Euh, même si instant on travaille dans euh, une équipe boo xam ñi ci des ñëpp ay mais euh, c'est vrai que man mu non, beaucoup bu ko nit waxul je prête pas attention parce que si si biir cadre bi y a pas y a pas ni jigéen lañ ñuy góor en fait. Ndeye Abi Ndoye di dalal xelu tangom yi muy liggéeyal. xarañteefam takkuteem ak it pas-pasam lay wesaare ci ñi muy jàngal nit ku yëwén la si liggéeyam très très engagé def lu bëri si maladie sacrifice yu bëri d' ailleurs te nit ku bëgg a joxe lu am la nit nga xam ne lépp lu mu am da koy day ñëw automatiquement jëm ko partage ak étudiants yu muy formé yi man en plus d' être chirurgien pédiatre di ko pratiquer man dama obligation former les spécialités. spécialité c'est-à-dire que ici à Albert les étudiants sont envoyés pour ñu jàng spécialité bi man dama former donc non seulement sur le plan pratique nous jàng opérer mais aussi de dama am ay charge de de cours am aussi enseignement euh, médecine nous avons def université Nous avons ñun euh, fonction universitaire chirurgien pédiatre yi néew moo tax professeur Ndeye Aby Ndoye dogu ci wàllu tàggat bi matuwaay yi ak it jumtuwaay yu bees ngir paj bu yéwén. bëggoon nañ lépp luy chirurgie xale ñu mën ko répondre en tout cas sur le plan national. ñun suñu défi mooy si Albert waaye qu'on puisse en tout cas def tout ba yenn materiel bi yëpp yëpp yëpp parce que équipe baa ngi fi ñu mën ko am. sur place Nous ne mënul def nous bu ñëwee fi répondre parce que nous tam bu ñu répondre à l'attente dina am lu sur le plan chirurgical pédiatrique loolu surtout mooy mooy suñu défi yenn matériel yu sew yi yu nouveau-né yu technique yu nouvelle. professeur Ndeye Abindoy de def formation médecine générale chez Maroc mu ñëw fii ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fa mu thèse de doctorat wam laata muy dem formation wam France geste yi mu def tax ba mu am. agrégation bi tax mu doon jigéen bu njëkk bu ko am fii ci Sénégal ci wàllu chirurgie pédiatrique. seen par carrière dafa am lu ñu ci fekkee euh, temps yooyu nekkagul professeur ba muy dem di présenté wu xëy na dañ ko doon ñaanal yàlla vraiment mu am wér bu baax a baax a baax mais amoon nañ trop yaakaar ci ñoom ba nga xam ne ñu ngi dem. parce que nous nañ seen parce que juste sur le terrain pour au moins par exemple soin des des formalités, mais du avons xam ni xëy na lu je pense bien si ma maman est bonne elle était même sortie majeure de sa promotion tout le monde sant aussi on est amené à faire ce qu'on appelle de la recherche maanaam yenn pathologie dañ ciy jël di bind c'est pour que nous wane avancer sur suñu domaine ci la pathologie bobo mais aussi nous, en tant qu'enseignants, ça nous permet aussi d'avancer. Là, c'est une obligation pour les gens jàngale yow agrégé continuer di les continuer étudiants pour synthèse de continuer dans les recherches. donc c'est surtout surtout volet boobu professeur Ndeye Abindoimi mon coordonné opération bébé à yi ñu été woon ca 2023 foofu Mouboku, qui mu bokk ci kilifa yi ci Sénégal Ragné lool ci wàllu wér-gu-yaram ci àddina bi wérngel képp. Fanta Badji di leen jox euh, rendez-vous dimanche euh, prochain ci beneen euh, rubrique santé lay doon 20h yeneen xibaar ci nasaraan lay doon ak Ibrahima Diédhiou mbokk ñu fanaan jàmm te di leen ñaanal it semaine bu neex a neex.